brigade douane bu Mbour ak brigade douane bu Joal am na lu am solo loo xamante ni liggéey nañ ko ci lu toll ci at ci maanaam rek ci maanaam jàpp ñi nga xamante ni ñoom ñooy def def euh, ñaawteef mën nañ cee lim manam li nga xamante ni mooy yàmbaa ji nga xam ne dañ koy dugal ci biir réew mi jàpp nañ ci lu am solo mu xam mu jaaree ci tali wala mu jaaree ci euh, ndox mi euh, ñoom daal ñu ngi ciy def seen kéemtulaay kattan waaye nag ki nga xamante ni mooy seen commandant di Xaalis Sow dal na daal ñi nga xamante ni ñooy marin yi aussi jàppal na leen bu baax baax baax ndaxte ñaari brigade yi xam ngeen ne ay brigade maritime la ñu. damaa am mbégte bu baax bu ma taxawee fii tey ngir lakk li nga xamante ni mooy ay médicament yoo xam ne baaxul ay samba ay bandi dañuy dem ba Gambie dem ba fu nekk di ko importer di ko dugal ci réew mi te médicaments yooyu ñun ñii ñëpp kenn kenn mucc ci kenn ci parce que boo demee pharmacie di jënd wala nga dem feneen di jënd doo xal doo laajte fan la médicament bi jóge ak fan la jóge donc ñun dañ cee war a taxaw temm muy médicament ak chambre li ñu ci jàpp nag vraiment ëpp na booy xool ci tonne ci ci ci quantité bi parce que buñ xoolee médicament yi rek ñu ngi toll si cinq tonnes de faux médicaments bu dee yamba bi nag lu ñuy wax chanvre indien ci tubaab mi ngi toll si trois tonnes cent soixante kilogrammes loolu bëri na trop te ñu war a gën a ñun douane ak toutes les force de sécurité ñu gën a taxaw xam ne ñii ay bandi lañ te parewuñ pour bàyyi ñun tamit lu mu leen jaral rek daf ñu ko war a jaral

samba boy yi dañ koy bëgg jaarale Sénégal benn bi ñu consommé ko fii li ci des ñu yóbbu ko Europe moo tax ñun ñëpp dañoo war a taxaw brigade maritime de Mbour ak brigade maritime de Joal ñaari brigade yooyu ñoo ko def ñaari brigade yooyu nag l' administration des douanes dafa def benn organisation bu bees en 2021 mu ne léegi kat dafa gis ne la petite code et la grande code fraude bi ëpp ci Sénégal foofu lay jaar moo tax mu créé une subdivision tuddee tuddee ko subdivision littoral nord subdivision littoral nord moo jëlee dakaar ba Saint-Louis littoral sud moo jëlee Dakar ba Cap Skirring ñaari brigades yooyu nag si subdivision littoral sud si la bokk maa ngi leen di gërëm ñoom ñaan ñëpp ngay les deux chefs de brigade parce que liggéey bu mucc ayib lañ fi def parce que quantité bi ku ko gis xam ne vraiment liggéey nañ te liggéeyu géej dafa metti dafa metti dafa bëri ay risques mais vraiment maa ngi leen di féliciter ñoom ñëpp ak seen agent yi muy le chef de brigade ay dara mooy le chef de brigade de Mbour mais aussi le chef de brigade de Joal muy lieutenant Birame Bigué Ndiaye